mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen site bi di jant bi TV di site buy woote jàmm liggéey jub juboo jubale ak jaamu yàlla ngir njariñul senegal gi ñu bokk ak jant bi TV aboneel bés kolos bi man di topp mbooleem suñuy programme te lépp lalu ci jàmm. mbokk yi nu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci ceetaan euh, bi ak déglu gi euh, Eh, dañoo bëgg a waxtaan ak yéen ci xew xew jamono réew mi dafa toll foofu ñu bari ñu mel ni man eh, dañuy wax ci yu bari yoo xam ni xam nañ ko ñenn ñi di wax ci yu ñu xamul ñenn ñi di dégg lu ñu xam ñi ci des di dégg lu ñu xamul te yàlla dogal ni waxkat ba dafa wax ni kenn kenn watu upp umpule say wareef lu nit di umpale ay wareefam moom bokk ci waaye it lu nit di umpale ab sañ-sañam bokk ci kon daal ndekee nit dafa war a xam réew mi nag toll foofu ñu bari dañuy wax ci yoon maanaam loi guddi ak bëccëg di wax artikël nangam article nangam ak article nangam di wax ay bunt di wax lu ne nga xam ni euh, lu nekk ñu ngi ciy wax bunt yeeg lépp rek euh, bu ko defee nun ak man ak ku mel ni man du ci xam dara dañuy toppee rek di topp nit ñi ñu di leen wax ah sunu xel nag dem ci waxtaane loi yoon bi ñu ko defee ñu tànn li ñuy wax constitution ndax réew mi nag dafa yëngu te ñëpp constitution la ñuy waxtaane waaye yàlla dogal Sénégal am constitution réew mu nekk am constitution ñu bëgg a waxtaan ci constitution constitution Sénégal nag xam ngeen ni dañ koo bind ci tubaab français waaye am nañu xereñ ñoo xam ne ñii dañu ko jël def ko ci làkk réew mi waaye mu mel ni Euh, jàppandal na walla jàppandalul ñu bari xamuñu ko mu ngi nii ma di leen wan téere la bopp ku ñuy wax Ahmed Diouf nga xam ni day liggéey ci yoon danañ la wax lu fu lu muy liggéey mos naa jiite chambre cour d'appel bu Dakar ci atum ñaari junni ak fukk gannaaw gi mu nekk na secrétaire général ci cour d'appel bu Kaolack nekk na itam conseiller ci cour d'appel bu Dakar ci atum ba ba ñaar téeméer eh, ñaari junni ak juróom-ñeent euh, nekk na secrétaire général boo xam ne ci mbootaay gi nga xam ni ñooy saytu làkki réew mi nekk na fa kon kooku téere bii bokk na ci mooy kenn ki ko bind ak soxna Aram soxna Aram moom itam euh, liggéey na ci département langues boo xam ne bii ba ba nekk euh, euh, ci Cheikh Anta Diop muy université Cheikh Anta Diop liggéey na itam ci fi ñuy wax organisation sénégalaise d'appui de développement OSAT it liggéey na fa moo moo tudd OSAT noonu Euh, ndax OSAT mooy mool ay téere tey liggéey ci lépp loo xam ne làkk réew mi la bokk na ci ñi nga xam ni sax moom moo ko sos booba ak léegi nag mu ngi ci euh, muy ñaar ñoo xam ne ñi des na nag ci kenn ku ci nekk euh, dugaluma li nga xam ni moom moo fi nekk ndax ñooñu ñoo toog ba mu jàgg ñoo xam ni constitution kat lu am solo la ñu def ko ay wolof léegi nag man itam ak kuréel gi nga àndal ci jant bi TV nga xam ni euh, genn kuréel la ci daara ji tool bi liggéey bi genn kuréel la ci jant bi euh, FM Ceneer FM ak Leer gi FM ak seeni jiit ah ñu jàpp ni warees na ko jàngal nit ñi jàng nag mooy liir liiral leen ko te def ci sunuy njeñse muy commentaire ci ni gu ko gis te bañ koo analyser ndax mbirum yoon la mbirum yoon nag moom mbokk yi lu xaw a doy waar la nun duñ ci xam dara waaye mën na noo jàng li nu bind ngeen dégg ko nga xam ni ñooñu ñoo ko wax nga xam ni article yi buñ tollee tey nag dañuy nekk ci ubbi ubbi kubité gi rek wax li nga xam ni loolu mooy euh, constitution te mu tudd ndeyi atte yi waaye ndeyi sarti réew mi wala ndey atte yi réew mi nga xam ni lépp luy atte ci réew mi ci loolu lañ ko jëlee loolu bu méngoowul ak ndeyu atte bi loolu duxul danañ ci xam dara ndax ki liggéey téere bii wala ñi liggéey téere bii leeral nañ ko ci kubite gi dafa wax ni réew mi am na atte yu kawe atte bu sut mbooleem atte yi ñu tudde ko ndeyu atte bi loolu laa leen doon wax léegi réew mi am na atte yu bari waaye atte bu ci nekk mu ngi sosoo fii wala bii moo sut booba bii muy lu ñuy wax conseil constitution mën naa dàq atte bu ne mën naa dëggal atte bu ne mu ni ab atte ci boppam jumtukaay la bu jëm ci kaaraangeem réew mi ak sarte réew mi kon nu xam loolu nu ni atte muy loi mooy atte mu ne atte bu nekk ab jumtukaay la loo bu nekk boo gis rek jumtukaay la boo xam ne bii dafa jëm ci kaaraangeeg réew mi ak sarti réew mi mbaa mu jëm ci kaaraangeeg doomi aadama yi wala ci seenu moomeel kon mën naa jëm ci doomu aadama yi wala nun sunu moomeel sunu moomeel mooy lan mooy lépp loo xam ne lii nun mën nañ cee teg loxo moo xam moom nan ko fii ak moomeel lañ fi tudd waaye nag fii mooy yëf yu mu mënti doon atte bi jëm na ci loolu gannaaw nag ba mu fësalee ay wareefam ndax loolu yi ñépp nag lu manti doon ci bu jëmee ci yow loola am na ay wareef itam atte bi am na waaye wareefi loola itam am na ci kon mu ni ndeyu atte bi moo di sartu réew mi kon nan xam ni constitution mooy sarti réew mi maanaam moo tënk atte yi réew mi séq ak kuréel yi aju ci moom yi mu séq ak nit ñi kon constitution bi dafa wax ni àtte boobu euh, ñu ngi koy xamee ak mu ngi dox ci diggante yeneen kuréeli àtte yi waaye itam mu ngi jëm ci nit ñi mooy nit yi mooy ferey réew mi moom la ñuy wax waa réew mi saa Sénégal am na am na yeneen tur yu ñu leen tudde Euh, ci yooye danañ ci ñëw ndax kenn ku nekk ak nanga nga tuddee waa réew mi nun fii ci euh, ci jant bi TV danoo jàpp ni waa réew mi ay fare lañ tudd maanaam fere réew mi waaye téere bi moom wooyee na leen leneen buñ ci àggee du dinañ ko wax ndax fii nit ñi la wax nit ñi am na neneen nu leen di wooye ak ñi muy doxe ak sañ-sañ yi nit ñi ak seeni wareef kon ndey atta bi mu ngi jóge ci mu ngi jëm ci sañ-sañu nit ñi ak seeni wareef kon constitution bi kat mu ngi jëm ci wareefi nit ñi kon constitution bi mu ngi jëm ci sañ-sañu nit ñi kenn ku nekk loolu mooy sañ-sañ yi ak wareef yi ni nga xam ne moom lañ koy waxee ci mu gën a leer ci wolof mooy wareefu nit ñi ak seeni warugar wareef mooy li ñu war a def warugar mooy li ñu war a jot ci bu ñu defee li waroon a def ba ba noppi kon mu ngi jëm ci constitution daal dëgg-dëgg ndekee bu jëmee ci nit ñi mooy ci seeni wareef ci li leen war ak seeni warugar li jëm ci ñoom kon mu wéyal moom kii ubbite maa ngi ci ubbite bi ba léegi mu ni ci ubbite gi itam ci ponk bu njëkk bi ci ubbi liñ mu ci njëkk a leeral mu ne ndeyu àtte bi tëral na ay sart yu mag yooyu war nañu koo tënk nii ñoo ngi tënku ponk bi yii ci yu gën a ràññeeku mu teg ni ah, cëslaayu tënku ci ndeyu àtte yi moom la leen di leeral kon léegi lii mu wax nii seeni cëslaay man maanaam fi mu wéeru fi nga xam ne fii la wéeru ni nu tënke ndeyu àtte bi ni nu tënke constitution bi ndax dafa tënku fii constitution ay àtte la yoo xam ne yi dafa tënku ci yeneen àtte yi maanaam ci yeneen cour yi ak ndax dañuy wax cour pénal euh, wax yeneen yooya benn bu ci nekk dañuy leeral foofa waaye nag ci ndeyu atte jii wala ndeyu atte bii lañ jëlee lépp lu jóge ci loola muy constitution kon atte bu fi nekk rek fii la jóge waaye fii moom dañ koo tënk bépp atte bu falukat bi fal war naa méngoo ak sart ndeyu atte bi taxawal gis nga ko mooy li ma wax kon bépp atte bu attekat atte atte bu mënti doon bu nekk ci réew mi war naa méngoo ak li nga xam ni moom la constitution bi di wax atte bu mënti doon ci fii la jóge fee nag dafa ko danañ ko gën a leeral ndax day am ay euh, da ngeen dégg ñuy wax article bi nii la nekk a aliena nangam nangam wala nii la ko leeraleeg nii leen ko waxeek nii leen ko defee waaye constitution daal fii la ndey atte moom fii la aste bi jóge kon kuy def ak la ngay def fii la war a fii la war a jëm su fekkee ne faluwaay bi dafa fal ab atte bu bët ndeyu atte bi warees naa folli atte boobu kon gis ngeen ko ci jamono yi gis ngeen ko ci jamono yu ne képp ko atte te atte bi nga atte jëlewul fii const conseil constitution con, uh, conseil uh, constitutionnel dafay dàq atte boobu su fa àggee ndax nag bu ko dàq dafay dàq atte boobu mooy dafay ars ay sart yuñ ko dàqee nun ko ko fay yóbboo ak yooyu yëpp xëj na buñ demee ci article yi ci biir danañ ko ci gis ndax man xawma lu nekk ci biir waaye kii nga xam ne leeral na ko dana ko leeral buñ ci àggee looloo mooy cës mooy tënku ndeyu atte bi cëslaay li moom leen doon wax léegi yeneen cëslaay mooy yoonal kon cëslaayu droit ci boppam moom la ñuy dugg nii ngir leeral ko mu ni dagal bu bu ne mu ni dogal bu ci ne donte sart gi nguur gi la tudd la tukkee do dafa ni donte sart bi ci nguur gi la tukkee mbaa ci ndawi nguur gi dafa war a tegu ci yoon su dul loolu yoon tëral na ay sart yu mën a neenal dogal boobu lim ci njëkk a wax loolu la mu ni bu fekkee ni nguur gi dafa tëral benn dogal walla ndawi nguur gi kenn ci ñoom tëral benn dogal boo xam ne bii te teguwul ci constitution bi mooy teguwul ci ndey sart yi dama ni ndey sart yii walla bu demee ci kuur constitutionnelle bi dafay neenal loolu kooka lum ci manti doon kon ñu xam ni ngir yoon fii mu mu mu tegu fi su fekkee ni nag dogal bi dafa jur loraange mbaa loraange juddoo ci tëng euh, dëng-dëng bu sababoo ci doxalin woowu bu nguur gi warees naa jox loraange kooku ci loru ndàmpaay su fekkee ni nguur gi dafa tëral benn dogal walla mu wax lenn ci kenn te looloo am ay loraange yu fa jóge walla ci ci lu mënti doon loraange bu mënti doon te loolo àndul ak sart loraange rekk nguur gi dafa war a dàmp kooko ak foofu ndoola nu mën di mel daf ko war a dàmp gis ngeen ko ci bu la yëkkatee fi nga war a jaar fi fi fi ortaraay war a jaar wala mu def dara benn bâtiment daanu ci sa kaw wala nangam nangam yooyu mel noonu lu mu mënti doon bu fekkee ne ci nguur gi la jóge nguur gi war lool na la ndàmpaay su dul loolu mën ngaa dem ca conseil constitutionnel ba nguur gi jox la ndàmpaay loolu wala boobu conseil constitutionnel boo fa mënta dem itam am na yoon yoo xam ne yi mën naa tegu ci nguur gi ba loolu xew léegi kon mu àggal ci bunt bii nga xam ni muy tëj yoon wi bu ko defee ñu xaar ba beneen yoon ponku tënku. Euh, ponk tënku ci ndeyu atte bi ak ponk yoonal doonte sax bokkuñu atte mënees naa leen a dendale ndax seen jëmu benn la te moo di aar yoon kon gis ngeen ko loolu it waxoon nañ ko fi ponk bi nga xam dañuy tënku ak ponk ci ci ci ci ndeyu atte bi ak ponk bi nga xam ni dañ koy yoonal yooyu yépp seen taxawaay benn la ñoo bokk fun fàqoo waaye ñoo bokk fun funu fu nu jógee itam kon nag ñu xam ci lii ndax ci ubbite gi dafa bari ay bunt ngir nu mën koo xam bala ñuy dugg ci article yeeg yu demee noonu des na cëslaayu dart bi des na cëslaayu tàqale baati nguur gi des na cëslaayu euh, sàmmoonte ak ak aqi euh, doomu aadama yi ak yu deen deme yooyu itam danañ ci wax ci yeneen waxtaan kon daal ñu xam ni ci tàmbali constitution bi kat ay sart la boo xam ne bi ah, yoon la woo xam ne bi yoonu réew mi yépp ci la tënkoo te itam liñ koy tudd dafa bari te it am na ci yu bari yoo xam ne ñi koy tudd li ñuy wax noonu la waaye am na ci ñoo bari ñoo xam ne ñi koy wax itam du noonu kon nag noo ngi leen di dikk ab daje beneen yoon di leen sant di leen gërëm